yàqu amu ak démb yëpp day mm. am na day am toujours ay yàqu-yàqu déjà démb rek foudre euh, bi rey na fa nit dënn bi ci dënn bi ci ay nit ñoo xam ne mm. euh, dañ doon football ci benn terrain euh, ci quartier wu Silma ñuy ñaan suñu borom teeru ko te teeral ko waral loolu xanaa paratonnerre yi doyul waaw waaye na xam nga paratonal moom lu ma am am dina am fu dënu daal te foofa bokk na ci quartier yi féete ci biti mhm. silma booy génn Thiès la mhm. ah jëm yoonu nootoo taset mhm. ah, ci terrain la woon aussi bu bu bu yaatu xanaa kay ah, jamono mbas lañu nekk waxoon nañ nit ñi aussi ñu bàyyi moytu ci yenn yi ci jamono bi ñu toll rawati nañu nekk ci nawet euh, bàyyi xel loolu aussi farata la en parlant de nawet mbaa assainissement bi foofu jaar na yoon alors euh, dañuy gërëm waa ONAS puisque euh, jamono yi ci liggéeyu ville bi am na liggéey boo xam ne ñu ngi koy def ak ñoom amna quartier yo xamné ne amoon nañu ay jafé jafé fofu tamit Promoville am na lu ñu ciy mhm. ndax amna terrain bu ñu tuddee bu siiw ci Thiès bu tudd terrain Cosmos saa yu masee taw kenn dootul génn sa kër kenn dootul jéem a yoni sa xalé mhm. alors jamono yi construire nañ fa benn mini station de pompage bo xamné au moins déjà ubina ay ay solution mu am leneen loo xam ne curage yu caniveau yi euh dafa doon lo xamné ay communes yi nekk biir tiès dafa doon sen cër waye gis nañu. FERA euh, jël ben projet bo am solo lëkkaloo ci ak ville de Thiès pour fi ak ay weer ñuy liggéey ci lool xanaa ma doli ci rek ben projet bo xam dañ ko amone avec les Allemands mu jeex il y a un an euh, mu tuddoon euh, réhabilitation et restauration des écosystèmes de la ville de Thiès bo xamé Thiès Thiès cuvette la dafa am ay plateau yu ko wër mm-hmm. te ni ñu euh, euh, écosystème bi dafa tax ba fi amone dék amatu fi ndox daan jaar dematu fa léegi ndox yooyu yëpp dañuy rogalaat ñëw dugg si ci biir dëkk bi di nga toog sax dëkk bi tawul ndox mi di ñëw parce que foofu lay jóge mm-hmm. liggéey bi nga xam moom laa def ak Allemagne nag mooy kar ndox mi ci plateau yi c'est-à-dire au lieu di intervenir ci biir ville bi ah. waaw mais nañ ko defee mooy dañ def ay ouvrage creusé ay ouvrage pierreux def liggéey boo xamante ne permettraat nañu ñu wëlbatiwaat ndox mi mu jëmaat ci fañ ko gën a soxlaa muy ci tool yi mhm. nga xam ne liy dugg tey ji ci dëkk bi mhm. dana wàññeeku maintenant lii dugg ci dëkk bi mooy liy wàcc ci dëkk bi mais la moom ci yi di dugg ci dëkk bi fexe nañu ba dugatul ci dëkk bi loolu nag wàññi na au moins pression bi mhm. en attendant ñu am les moyens bala ñoo ci euh, euh, mbënn mi waa waa Aiglon ak waa Ngéej moom lii ab yóbbante la bu jógee ci ñoom muy quartier yoo xamante ni nee naan mbënn mi sonal na leen juróom benn at yaa nga fay maire noo def ba tàqali amul mënuñoo jot ñom li di mbënd mi fofu waaw xam nga du sax euh, mhm. zone la non, la nit ñi ñu kenn mais def nañ ko. non nañ mhm. vraiment donc ñu bari ñoo responsabilité C'est des responsabilités partagées mhm. parce que ngent bañ fa de avec le ministère de l'urbanisme amna ben benn bo xamanteni ñing koy def ci zone ZAC bi am zone de recasement actuellement il y a plus de 200 logements yo xamné qui sont en construction te liñ fa bëgg def moy fexé ba reloger ñi nga xam ñoo nekk ci zone yi nga xamné ala kulli al kenn mënu leen récupérer maintenant pour lu jëm ci églo euh bu miin Thiès da ngay xamné dafa am ci zone centre ville bi yépp lo xamné souterrain la mm-hmm. alors euh, dafa am ay travaux yo xamné dañu fat foo xam ne ndox mi dafa doon jaar donc il est essentiel que ci dans le cadre du plan de développement de la ville yenn yi nga xam ne ñun mébét nañ ko ñu trouver les moyens pour fattarñe yooyu et pour nga def ko nag du lu ndaw dañoo am deux dallo qui sont à Thiès benn bi nekk fu ñuy wax Jules Sagnan ci suufraay bi beneen bi nekk euh, Sampaate ci suufraay bi dallo bañ leen di defar dafa am quantité ndox bu daan ñëw ak vitesse bi mu daan duggé ci dëkk bi. kon suñu démé ba nga xamné avec lima wax ci écosystème yi ni muy duggé ëpp doolé yenn population yi ci boppam di fa sotti mbalit nag loolu mom ci ay nit ñi la. di fa sotti mbalit di leen fat daloo yoyu il faut ñu redimensionner leen. pour nga redimensionner nak daal yu nekk ci suufu il faut quand même énormément d'argent. yu mm-hmm. nga xamné ne ville bi amagu léegi nak bu ñu également.